ñëw ci une actualité vous concernant après votre départ du gouvernement vous avez voulu intégrer l'assemblée euh, de de de l'IFAN mu am levée de mu am levée de bouclier alors est-ce que les choses se sont se sont résolues où est-ce que vous en êtes votre demande a été acceptée non euh, musuma demande de l'IFAN non dañ ma ko proposé woon Euh, ah c'est pas votre demande. non j'ai pas de mm-hmm. euh, euh, dañ ma ko proposé biñ ma ko proposé ma accepté. kan moo la ko proposé. ma ñëwee université autorité universitaire yi nekk foofu ñëw ma ne bon souvent professeurs yi nga xam ne dañu am sa expérience demoon ci gouvernement wala dem ci organisation internationale ñëwaat suñu ñëwee dañuy def recherche parce que chercheur su amee expérience université ci gagné. donc ñëwul il faut nga def recherche man leen d'accord bi ma gisee mu am coow ma xam ne comprendre ñu peut dafa am malentendu ma génn ci delluwaat sama faculté des sciences juridiques et politique droit bu donc da nga abandonné ce ce ce projet la maa ngi faculté. et des sciences politique.